Omar Faye daf ne moom mooy leeral askan wi mais li gën a neex ci Omar fay mooy dafay jóg pareen saay pour leeralal la mais day mel ni day lëndëmal askan wi ñu ànd ak waa Rési déglu Omar fay kàddu yi nga xam ne moom la yëkkati je en prie candidature de bëri na waaye li ma la mën a wax mooy candidat bu wóor bi ñëwagul ah ak ah, ñi déclaré nii yëpp am na bu ñuy nekk si marché bi di wax marchand ambulant yi secteur privé national commerçant yi paysan yi journalistes yi yaa ngi dégg de mhm. ci xale yi yu góor comme yu jigéen kilifa diine kilifa aada mhm. association yi ak ñëpp bu ñuy tudd si dëkk bi di ci wax. ñu ngi koy tudd saa su ne. ñu ngi koy tudd saa su ne di wax ci moom waxagul candidature am. te woo non non moom waxagul. te li ma la mën a wax daal mooy. léegi tur bi nu muy démarré. non kenn mënu ko wax. <laughs> kenn mënu ko ko deviner. te mooy candidature bu baax bi. mooy bi nga xamante ni bu ñu nee bëreet ñëpp daw. te boo waxee candidat la kenn du ko dindi. kenn du ko dindi ñëppay d'accord. mbir mi nag mooy est-ce que dina nangu. waaye ñëpp moom lañ bëgg mu nekk candidat. ñu ngi boobu dina yéeme de. ko doon loterie mm. <laughs> li a wax mooy. na ñëpp taxaw xaar. Omar fay li mu def nii bu ñu ko doon faram fàcce di ko leeralal pour nit ñi gën a comprendre lan la Omar fay def Omar Faye dane candidat bi nga xamante ni bii déclaré gut candidat kenn xamagu ko waaye bu ñëwee dana jaaxal nit ñi parce que mooy ki nga xam ni ñi ngi koy tudd ci Marseille ñi ngi koy wax ci grand place yi di ko wax ci oto yi di ko wax fépp waa ji ne ko te mooy candidat bu baax bi mu ne ko waaw mu ne ko waaye bés bu ñëwee dana bett ñëpp te nee na nit ñaa ngi koy tudd ci Marseille nit ñaa ngi koy tudd ci grand place yi waaye bu ñëwee dana bett ñëpp déclaré gut candidature li mu def ni mooy vente aux enchères maanaam li mu def ni dafa sànni ay meeb yow mi may seetaan sax mën naa doon yow il fi que nga am noo doxaleeg Omar mun mu ne wax mu ne kii laa doon wax maanaam dafa sànni meeb ci ñi nga xamante ni bii tey ñoo taxaw pour bëgg a laaj réew mi te déclaré guñ parce que leer na ko ni ay homme d'affaires ay femme d'affaires ñu ci ne mën nañu rapproché ci jamono ji nekk nii parce que jamono ji nekk dañ nekk ci tournoi boo xam ni bu doy waar la am na ñu bari ñoo xamante ni bii danañ taxaw fëgg seen dënd ne candidat la parce que ñu bari dañu yaakaar ni affaire bi war nañu mën a bokk même bu ñuy am nangam nangam pour cent maanaam loolu après dana leen jariñ ci seen wàllu business ci seen wàllu liggéey bi nga xamante ne bi ñu koy liggéey ci jamono jii bu sénégalais yi defe naa ni eh, ñoom Omar Faye lii ñuy def nii doon na dox ci ay jamono yi nga xamante ne bi politique bi eh, ay politiciens ñoo fi nekkoon di nax ñenn ci askan bi boobu yu mel ni yii ñoom Omar Faye di def doon na dox mais Omar Faye xam na ni li ci gën a doy mooy ñoom xam nañ ni lii doxut mais dañu bëgg am ñoo xamante ni bii ñoom lañu ñu euh, bëgg a nax léegi xam nga bu njëkk ba danga daan gis nit kuy ñëw di nax askan wi jaar ko par ñi nga xamante ni bii ñooy ñenn ñiy toog ci presse beeg yooyu pour ñu jaay sa tur jaay la defar la bu ngeen seetlee sax ci fan yi nga xam ni moom ngeen gis di ngeen dégg ay tur yoo xam ni ñu bari ñoo xam da ngeen leen a gis ci télé yi defe ne ay analyste yu neutre lañ ñu leen di jox ay tur mais tur yi ñu leen di jox nekkul ni dañoo analyser ba nekk fa de déedéet mais day am luy xew ci suuf yuy mën a tax ñuy doxalee nenn di c'est que sénégalais yi parfois il faut que ñu comprendre ni ñi ngeen di jàpp ni ñu neutre lañ dañuy toog di analyser jaay nañ seen bopp ba ngeen leen di présenter fépp di wax naan diw ngand la diw mën na diw def na nii diw def na nii ñooñu tamit dañuy marchander maanaam dañoo nekk ci luuma jamono juñ toll yi cib luuma lañ nekk maanaam ku ci ne am na loo xam ne liggéey nga ko te dafa am fu ñu jëm léegi loolu nga fas yéenee jaay léegi nag di ngeen dégg ay tur yoo xamante ni di ngeen gis ñu commencé di leen tudd nga defe ne xalaat a fa yegg déedéet xalaat yeggu fa waaja day am nu mu def ak ñoom wala. Eh, mën na doon góor mën na doon jigéen day am nu mu def ak ñoom ñu am fu ñu jaar bu ko defee nag ñu ne ko dinañ fesal sa tur mais duñ ko tëb tëb rek forcer ko mais dañ koy jël di ko imposer sénégalais yi ndànk-ndànk di ko wax ndànk-ndànk di expliquer bu ko defee nag ngeen jàpp ni lii lu normal la fekk ne ñoom ñoo ngay liggéey ñoo ngi ci business mais nekkuñu ci analyse Omar nag moom dafa sànni. léegi nag di xool kan mooy jàpp ngir bëgg a doon kii mu ñuy wax nga xam ni wutalu ko tur bu ko wutalu tur nga defe de da waajee xaar déedéet day xaar gaa ñi mën naa nekk ku ne mën naa nekk góor mën naa nekk jigéen parce que jamono ñu toll nii jamonoy làqar ci ci la gaa yi ne moo tax buñ jóbee ay élection euh, comme ni mu demee ni nga xamante ni sax bii dafa gën a grave c'est parce que li tax mu gën a mooy ki nga xam ni mooy président du bokk ci élection yi kon bii dañuy gën a mën a business bu yoboo nga xam ni bu ngeen di dégg ay nit di analyser léegi ci télé yi wala ngeen dégg nit ñi di analyser ci li nga xamante ni bii mooy internet yeeg fépp def leen très attention parce que gars yi homme d'affaires yeeg businessman yi jaar nañ fu ne pour bëgg ñuy fesal seen tur ndànk-ndànk loolu mooy li nga xamante ni bii mooy li am kon sénégalais il faut que ngeen gën a prudent gën a teey bu ñu leen tuddalee nit goo xam ni kii kenn mësu koo dégg ci langue politique gi gars yi commencé di ko analyser bu leen jàpp ni rek xel a daw ba yegg fa bu leen jàpp ni ki koy wax ku innocent la mais calculer leen bu baax a baax parce gars yi fi mu toll nii euh, ñi ngi commencé jaay crédibilité bi nga xam ni am nañ ko dañ koy commencé di jaay façon bi ñu koy jaayee nag bokkul ku ci ne am na noo xam ne noonu ngay jaaye crédibilité bi yéen nag yéen ñi leen ko jox yéene leen ko may te ñoom it xam nañ li tax ñu am ko ku ci wàcc sa yoon <laughs> yat wi dana dal ci sa kaw ku ci wàcc yoon rek yad wa dana dal ci sa kaw parce que sénégalais yi nelawatuñ xam nañ li xew il faut nag ngeen xam ni mënu leen a naxati nit ñi parce que réew mi tool na foo xamante ni il faut ko ñuy waxante dëgg bañ di naxante